asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki internetu Khidma 28 TV muy télé bi leen di toppal tànki sëriñ bi ñu ngi fi ba tey ci màggalu sëñ Mor Diarra borom Sam di magi mag ñu ngi feggoog sunu sëriñ suñu kilifa di sëñ Basiru Mbacke sëñ Modou Mbacke mu sëñ Basiru Antañang ñu ngi koy jox mu nuyoo bu ko defee ñu soog a sóoboo moom nag ci li nga xam ne moo ñu fi bokk dajale ñun ñëpp salaamaaleykum sëñ bi ma 28 ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu auzu billahi mina wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin saydina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawri doon tamkin mbokki Xidma TV ñu ngi leen di nuyu ci euh, bis bu mag bu tedd bi nga xam ne sunu bisu maam la di bisu sëriñ Maamoor Jaara di borom saam ñu ngi fi ñu jottali kàddu yi kilifa gi rek docteur Balla Mbacke Mboup moom mooy suñu kilifa keroog daje nañu kër bàjjen soxna Mbacke muy doomi borom daarul mooti ngeen def fa taxawaay bu am solo ndongo lay àdduna mooy Ibrahima Ndiaye ñu ngi siyaare suñu xarit mi ci caméra bi sëñ Modou kon bu ñu la doon wax rek nga dikkalaatul ñu si jëmm ju tedd jooju muy sëñ Mor yan kàddu nga ñu ci mën a indil. waaw jërëjëf euh, sëriñ bi ginnaaw bi ñu nuyu mbokk yi ñu seetaan yëpp euh, ñu ngi leen di siyaar bu baax ci bis bu tedd bu mag bi euh, di sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom mooy tawféex nu fekke woon ko daaw ren ji mu defal nu tawféex nu fekke ko ñu ngi sant yàlla ci tawféex jooju di ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara tawu ko itam nu fekke waat ko it déwén ba ci barkeb sunu maam ju baax ju tedd ji di sëñ Mamour Diarra di borom saam sëñ bi ni ko waxee rek euh, sëñ Mamour jaara borom saam doy na rek euh, ñu mën a wax li nga xam ne moom la yàlla sunu borom wax ci alxuraan muy aaya bu am solo sunu borom dafa wax ne wal xaqibatu lil muttaqin mu taqin mu ne ak mujj ñi ko am mooy nit nit ñu ragal yàlla ñi. Euh, sunu maam ju baax ju tedd ji nag di borom saam ci gaa yàlla yooyu la bokkoon ci nit yàlla yu mag yooyu ca la bokkoon nit xam ne daal. Euh, wax dëgg yàlla fekke wuñ jamonoom waaye liñ jàng ci histoire dégg ko ci mag ñi nga xam ne fekke woon nañ jamono nit la woon koo xam daal ci nit yàlla yu mag yi ci la bokkoon jàmmukatu yàlla bu mag la woon ci góor yàlla yu mag yi daal ci la bokkoon koo xam ne ki daanañ wax ne guddi bu mosaan balaa tëdd faaw téeméeri rakk wala lu ko ëpp daana ko daana ko naafila guddi te du bokk nga xam ne mooy julli yeneen yi muy def kooku nag wax dëgg yàlla koo xam ne kii bis bi set da nga julli téeméeri téeméeri rakk kooku yaakaar naa du nitu caaxaan te wax nañ sax bi mu demee ba ko nga xam euh, mag yi dikk na ko ba mënatu la taxaw dafa wax nañ ko sampal bant boo xam ne dañ ci mën di taxaw boo demee yaakaar naa saam boo demee Missirah da nga ko fekk maanaam bant boo xam ne dañ naan bant bi bu mu san kii ci lay sukkatu di jaaw jaamu yàlla nit lu ko yàlla mayoon itam barke barke bi àdduna waaye barke boobu itam dañoo wax ne da ko daa suub ci jaamu yàlla ndax wax nañ ne euh, fi nga xam ne fi la nekkoon mag ñi ak nit ñi dañ daa ñëw ci moom di jëfandiku di xewlu xewal yi nii waaye ku mosaan xewlu bu noppit amul waxtaanu adduna waxtaanu adduna du am Mamour Diarra wax nañ ne jotaayam amul waxtaani adduna moom koy ku xas da nga xewlu ba suur ba rek waaye nag ba noppee am na dog bu mu lay jox nga def ko moom ngay resel ñëw am ñoo xam ne leen di jox ne leen def leen salaatu ala nabi mu jàng leen xasida ñi leen def leen kenn ku ne daal dana am xam ne lii loolu ci loolu ngay wéetale suñu borom kon kooku nag yaakaar naa du nituk caaxaan waaw kooku yaakaar du nituk caaxaan doy na rek sëkk mook sëriñ bi ñoo bokk lépp sëñ bi it am fu mu ko tegoon lool nag sëñ bi xamoon ko lool jox ko war ma am fu mu ko teg ñi bokkal bàyyi ñëpp itam waa kër Maam Mor Anta Sali ñëpp dañ ko jofoon mooy seen kilifa ndax euh, lool ma la wax euh, noonu mu jege woon suñu borom subhanahu wa taala kon daal ma sëñ Maam Mor daal wax nañ ci nit ñu baax ñu bàgg màgg ji daal moom ci bokk kon tey jii la ñuy fàttaliku ñu war koo fàttaliku nag ci noonu ma ko ragal yàlla googu ci mbaax googu jege googu mu jege suñu borom ak noonu mu doon tërbiya nit ñi ci di leen liggéeyloo ak di jaamu yàlla wax nañ ne liggéey ak jaamu rek ci la nekkoon lim gor ci suuf gis nga boo demee mesere nga xam ne dem na ba xaajale daanaka daru muuti loolu lépp suufam moom moo ko daa bay te bëggu ma saan bay itam ci nit ci jaamu yàlla yi rek la ko jox nit ñi ñoo ko daa jëfandikoo waaye li ma ci wax léegi eh, nit yàlla ñoom liñ eh, bu leen yàlla dafa lay xéwal xéwal googee duñ ko duñ ko reesale ci lu delloo ko yàlla nañ ko doon delloo yàlla kon mooy di ko di ko di ko di borom ko jullee ko e rakka wala ñu def ko salaatu alnabi wala ñu def ko kon berne yooyu mu daa def loolu mu daa liggéey lépp lu mu bari bari yàlla sunu borom la ko delloo kon daal tey jii yaakaar naa ne jëmm jooju ñuy fàttaliku sëriñ bi yaakaar naa jëmm ju màgg ju tedd la ku nituk yàlla yu màgg yi dal ci la bokkoon yàlla ñu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem ñaan yàlla sunu borom ñi nga xam ne ñoo ñoo fi nekk yàlla sunu borom defal leen xéewal ñi fi nekk yàlla defal leen xéewal ñi ne ñoo ñoo ko wutu mu sët yeeg doom yàlla na mënu sute moom waaye nag ñu jiima ndax comme maam ju mel noonu ju baax ju tedd noonu mënoon mën na maa mel ne moom waaye na nga góorgóorlu rek yow nga góorgóorlu ba nga xam ne yaa ngi ci tànk yi rek yaakaar naa loolu am solo waaw. waaw mooy lu mel ne ak euh, sa wajur sa maam borom daaru ak mag ñooñu nga xam ne ñooy wóor bu njëkk bi Cheikh Ibrahima Fall ñoom ak sëñ Dame Abdourahmane Lo muy xalaaxa bu dëgër boo xam ne doxoon na diggante sëñ Mor Diarra ak ñooñu waaw wàcc nag ba ci njabootu sëñ bi ñi ñuy woowee ay doomi sëñ bi. dëgg la moom sëñ bi laaj bu ma <laughs> bu ma neex sax nga ma laaj wax dëgg yàlla ndax euh, li nga junj léegi bi xam ne sëriñ bi dem ci dem na ci géej gi amul lenn lu muy def maam Cerno Birahim mi nga xam ne moom la sëriñ bi tegoon na ko teel njaboot gi amul lenn lu maam Cerno Birahim di def te demul laaj ko ci xalaat ba jox ko ci ndigal kon sëriñ bi loolu doy loolu doy na sëkk kii amul lu maam Cerno Birahim Mbàkke di def te demul ci Maamor Jaara laaj ko ko sëriñ bi sax bu ko mësaan bind lettre lu mu ko saa bu ko bindee lettre dafa ko wax na ko demal nga laaj sëñ Maamor Jaara boroom saam ndigal lu mu ci joxe rek nga jëfandikoo loolu amul lenn lu mu daa def bu mosaan bay bay ba noppit mbay mi lu ci bari da koy jël lu li njaboot gis dundee ak leneen li kii li ci des lépp day jël addi yu bari dem yit ko borom saam Mamour Diarra kum kum kum joxoon war ma la ni fi tegoon sëñ bi a kawe sax ndax ginnaaw mooy mooy seen mag ñoom ñëpp war ma jooju lañ ko joxoon ak ragal yàlla keeg mbaax keeg yooyu ñoom daal defoon nañ ko muy seen kilifa kon noonu ko xale maam Thierno Ibrahima euh, wax nañ ne bi ñuy gor Daarul Muxti di jëm si noonu ci ba agsi xam nga ba agsi ba ci guy gi foofu noonu ci ko dugg tuuti rek dañoo wax ne suuf su Maam Mor Jaara foofu lay mën waaye daf leen ngir jox suñu war suñu mag jooju war ma lam moom bu ca kenn dugg lu tolloog tarafatal xëy ni li ñu moom sax bu ko soxla woon sax dañ ko ko jox te lu mu fa musaan liggéey Maam Mor Jaara la ko jox bari na ay lettre xëy na jotaay bi dafa xat ay lettre yu bari yoo xam ne yii sëñ bi daana ko bind ne ko da ngay laaj maam sëñ Maam Mor Jaara lu mu ci joxe ndigal rek nga jëfandikoo loolu kon dafa nekkoon moom jëwriñ rek waaye kilifa gi moom Maam Mor Jaara la ko defoon bi sëñ bi ne ci géej gi ndigal lu sëñ bi joxe mu jaar ci moom ñëw ci Mamour Diarra mu door ñëw ci moom kon daal ñoom defoon nañ ko seen kilifa defoon nañ ko muy seen royteef muy seen mag joo ko fekkee noonu ma ko wax léegi ñu jàpp ko jox ko ci bi ñu war a jox loolu daal sëñ jàpp naa moom wax dëgg yàlla lu am solo la loo xam ñun ñëpp war nañ cee xel naal la sëñ waxoon ne bi ma ñëwee ci yoon yi moom joxante war ma alxuraan topp sama moom ci yoon laa ko fekk ñoom loolu. laaj bu mujj bi rek mooy sëñ Mor Diarra digganteem ak njabootu sëriñ bi wax nañ ne sëñ Fallou moom ku mel ne sëñ Fallou bu ñu ko tuddee rek moom sëñ Mor jooy na sëkk moo ko xamal lépp. nga xam ne jàkka ji sax bi mu ko ko tabaxalee dane ab sëriñ ab dong mënta ñàkk a joxe te xam naa ne mu ne su ko ci kaw suuf la koo ëppal néegu yàlla ma ko muy sama àllarba. maanaam loolu moom euh, maanaam ki ki nii léegi rek doy na ci misaal sëñ Mamour Sam moomu. xam nga doomi sëñ Fall la moom la ko sëñ Fall tuddee moo tax ñu naan ko sëñ Mamour Sam loolu tax ñu koy wax sëñ Mamour Samb moom moom nga doon jël léegi nii ci saal bi kon loolu doy na firnde moom itam fa ko sëriñ bi tegoon euh, rakki sëñ bi teg ko fa ñoom faraw foofu la mën na lañ ko tegoon waajur lañ ko defoon woo xam ne bi moo doon seen lépp ndax gis nga ko ñu bari am moo leen jàngal bari na jàngal ci ci waa sëriñ bi bari na ñoo xam ne moo leen doon tër bi ak di leen ak di leen teg ci yoon ak di leen kon daal diggam ak euh, ay rakkam diggam ak doomi sëñ bi ak ak waa yoon wi muy murid murid maam Cheikh Ibra Fall ak ak Issa Dieng ak ñu baax jooju ñëpp ci yoon wi rek mu si su leen dem ñoom ñëpp rek war ma jiñ joxoon sëñ bi war ma jooju lañ joxoon sëñ bi borom saam ndax xamoon nañ fi fi fi ko yàlla suñu borom teg ak dara xam ne moom la ko suñu borom teg waaw Mamour Anta Sali daal la kenn xamul lu mu doon moom la kenn xamul lu mu doon rek waaye daal koo ci làmb daal doo xam fu mu doon kon daal suñu mag suñu maam ji ñuy mag tey ñuy fàttaliku tey muy Mamour borom saam yaakaar naa ne woon kër yàlla suñu borom joxoon ab cër la waaye cër boobu euh, xam nañ ko bu a na ci di leen sant di leen sant bu baax nag di leen gërëm ci ñaan yàlla suñu borom seen média

ci barki sëriñ bi ak suñu maam maam borom sàmm